pour mu nekk mars deux mille vingt il faut ñu abandonner parrainage bi mënul bu fekkee ne am nañu volonté mu nekk premièrement dañuy commencer audit fichier bi ak évaluation processus électoral bi léegi léegi léegi parce que loolu rek dina jël trois mois parce que audit bi évaluation bi ñu ngi ko planifier sur trois mois ñu ngi ci mois de juillet août septembre octobre bu loolu paree dañuy tijji liste maanaam ñi inscrire woon mën a dem inscrire loolu rek dina jël deux mois minimum ñu dugg décembre parrainage bi rek war na jël trois mois. mënul nekk 2021. non mën na nekk bu abandonné parenage bi commencé léegi mais bu ñu ci boolee parrainage parrainage bi processus am quatre vingt cinq jours la maanaam presque trois mois. mais mu Ndiaye war nga xam ndax am nañu volonté c'est-à-dire les acteurs am nañu volonté pour bàyyi parrainage ou pour ñu mën a xam ndax les élections locales vont se tenir en 2021 au plus tard au mois de mars acteurs politiques yi société civile ñëpp dañu bëgg ñu bàyyi parrainage bi pour élections locales yi mais majorité d'accordul loolu tamit point de point de désaccord la ci ci dialogue bi xam nga dialogue bi ni ñu ko tëggee dama jàpp ne dafa am sax benn piège bu ci nekk mhm. bon loo leen d'accord je suis d'accord loo leen d'accordul jébbal leen mu ko noonu la pare que ça dire que ça veut dire lu ñu mënti discuter tey bu fekkee bëgguñu bëgguñu mu yegg ci bëgguñu mu am accord dañuy wax majorité ne neel d'accord rek bu dee d'accordul maanaam dañu ko naan point de désaccord ñu dugal ko ci panier bi yéegal ci biir yéegal ci biir biir euh, biir euh, yóbbu ko ci président Macky Sall mu donc euh, parrainage bi la société civile l'opposition les non-alignés ñëpp dañu d'accord war nañu leen dànkaafu woon de ne ne piège mi ngi ci biir alors que les autres ont accepté d'y aller maanaam am na nañu dànkaafu woon wax ne ku moywul dañu leen di tegal benn nëgg sërëx terewul ñu bari dem sumb ci dialogue boobu nga xam ne am na waaw dialogue bi mais dialogue mënul ñàkk ci réew parce que dialogue moo indi tey président Macky Sall gérer Covid bi ci début bi ak dal nday am moment boo xam ne il faut que ñu même les guerres se